jókkaale koko ngir jàppam ci desal li gën yow mi am taman desal li gën ci la def nga isaay loolu mooy message bi yéen soxna yi maa ngi leen di dénk li tax ma leen di dénk nag mooy coow yi bari na lool ci yéen ci dëkk bi damaa bëgg ngeen xam ni yéen ñi am valeur ngeen xanaa xamul ni bay ba sunu borom nam mi indi ku toll ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yéen la bàmm ca jox leen benn produit yi leen dencal leen ma ko ba mu jox mu indi ko àddina ba suñu borom ma nee tànn jiwru ju toll ni Xaadimu Rasuul yéen la bàmm ba suñu borom ma nee tànn toll si Abdou Xaadir Jeylaani yéen la bàmm yàlla kattanam yegg na si fu mu bëgg a génnee doomu aadama génnee ko fa waaye danaan góor jox ma produit góor jox ko produit bi mu ne jigéen dencal na yow laa wóolu jigéen góor a koy jox produit bi waaye wóolu ko jigéen la wóolu su ma nee produit bi mooy maa ngi nuyu mu ñu def olof góor jox ma produit bi mu dox la bu njëriñ jigéen ne ko dencal ma denc ma di génn mu faa fi mu booy xarit sa biir nga am na moom dégg ñaar dëgg dugg si xoolal loolu la yàlla defal ni mu rëy yow jigéen kon bu ñu ngi utiliser bul moom ku la jël di la utiliser ngir ay prochaine daraat nga jël ko bu leen daraat nga jaral loolu bu leen ko daraat nga jaral bànneexu ñaari nit bu leen ko jëlee ba ko doon bànneex bu leen ko tontel yéen a ëpp valeur lépp yéen a ëpp valeur lépp loolu bàyyi leen ci xel loolu maa ngi leen koy dégg ngeen góorgóorlu ci bu leen ko dara jaar bu leen ko dara jaar bu leen ko dara jaar bu leen ko dara jaar ndax yéen yéenay lépp dafa leen suñu borom teg bu ngeen ko xamoon da ngeen xam ne kenn ak leen du la yéen jigéen. nit yàlla koo fi gis rek ci yéen la bàyyi ko nit yàlla koo fi gis ci yéen la bàyyi ko yéen rek ngay jël xot bu samaan. nit yàlla koo xam ne day dégg ba mën a góor yéen rek sañu wéeteeg moom ci néeg ne ko sama naw lay dafay keneen seen bopp xam ngeen seen bopp ngeen xam ne yàlla ci lan soxna jaara mi ñëpp di coow ci yéen la bàyyi ko ñu ngi seen biir maam Fawal bi la ñu ngi seen biir soxna Amina ñu ngi seen biir kenn génn leen kenn àpp leen ku fi kawe gis àddina kon li nga muur ci biir ak li nekk fii da mën a li mu dem kon foog nga wàcc ba tollu ko ni nit laa nag waaye nag la leen bàyyi mooy danaa leen garab bu ñu yurub ndax procureur général boo demee moom ci mbedd mi mosul yéen oyof mosul yéen oyof xam ni kii ma leen ci biir bu ko ma am valeur boo fi boo fi jéggee nit lay doon xanaa xamul mbiru nit la gën loolu bàyyi leen ci xel nañu bàyyi malaaka malaaka gi il faut ñu napp te wàcc ba doon tànn yow nit da ngay wax dafa am valeur il faut que doon nit dafa am valeur waxal malaaka yi mais doon nit dafa am valeur di dundal ko maafuus doon nit dafa am valeur boo fi boo fi jéggee nit lay doon. bàyyi leen ci xel nañ bàyyi malaaka malaaka lu gi il faut ñu napp te wàcc ba doonoo taalibe yi day wax ak ñoom suñu gàtt yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa su ko sànni sa la rek nga di ko dégg baat bu dee moom màggat te gën ku màggat ko jur ngay rey baat rahmatullahi taala wa barakatu la sëñ Tuubaa waxoon sëñ Fallu ci ñaareel rek mbaa yaa ngi nangu ñu lay nax ci man man de ku ma nax ci rasul tay bu jël sëñ Tuubaa ko waxoon Cheikh Mouhamadou Fall kon bisu sëñ bi bu dee bu doon ay nax sax ci ñëw ku la ci nax nungul ndax kenn du def dara ngir sëñ Tuubaa di ko rëccu kenn du def dara di ko rëccu kon maa ngi li ko tàmbalee ci daayira Riyad jawriñ Pape Ndiaye professeur universel kuy membre Riyad na mel ni kuy xare Badar ci màggalu Sëñ Tuubaa bi kuy membre daayira Soxna Fatou Ndiaye bu Grand Médine na mel ni kuy xare Badar ci màggalu Sëñ Tuubaa kuy membre daayira Kanzul Muhtadina naka mel ni kuy xare balal ci màggalu Sëñ Tuubaa ji kuy membre daayira Soxna Fatou Diakhaté bu Kayaar naka mel ni kuy xare balal ci bisu Sëñ Tuubaa bi kon kuy membre daayira Touba Tawféex ngee ñeen naka mel ni kuy xare balal ci bisu Sëñ Tuubaa man ñëpp fi kuy membre daayira Soxna Fatou Diakhaté bu Bigin naka mel ni kuy xare balal bisu Sëñ Tuubaa bi. kuy membre laay la ñu taxawal xayri na nga mel ni kuy xaral alam bi suñ tubaab bi ñëw na sunu bis de boobu gis mooy bisu ko tedd Sëriñ Tuubaa xaali bis boobu ku fi nekk dina yu mu sedd guy ngay naan mu jàll ngay lekk nga toog am sécurité am santé moo tax kenn mënu koo caaxaare te ku Sëriñ Tuubaa dara dimbali di nga fonk màggalam bi ku nar a am tawfeexi Sëriñ Tuubaa laa wax de saa su ne da ngay ñaan yàlla di yokk ci màggal waaye doo arrière daray àddina teew dund ci àddina bii bisub Sëriñ Tuubaa ñëw nga yëg ni yow bis bi dañ koy arrière boo tëddee war ngaa tiit loolu xel sax mënu ko moom ku ci daan def dërëm def ci ñaar dërëm ku ci daan def fukk def ci ñaar ku ci daan def téeméer def ci junni te bàyyi sa bopp Sëriñ Tuubaa du man de du keneen bi la Sëriñ Tuubaa waxoon Sëriñ Fallu ci jaareem rek mbaa yaa ngi nangu ñu lay nax ci man tay mu ca Sëñ Tuubaa ko moom Cheikh Mouhamadou Fadal kon bisu Sëñ Tuubaa bi yéen sëriñ si Sëñ Tuubaa du morom bu ko kenn mënulee sa jëmm kooku doon ko man ko taaleel sax yow def yombut kooku doon taaleel sax yombut bu malaa mënu ko yéen sëriñ si ay jëwriñ ngeen benn sëriñ rek amoo Sëñ Tuubaa il faut ngeen wàcc seen bopp ci suuf waxtaan bi ngeen suñ jëwriñ seen jëwriñ tamit Sëñ Tuubaa dañoo jiital ngeen di xool ñun royukaayu Sëñ Tuubaa bi waaye duñ malaaka duñ jinne ay nit dañ ko yëg nit ki boo ko wane ne malaaka la boo déggee nit dañ koy jaaxal te fekk nit la comme moom da ngaa sàmm bëgg mu sàmm rek te nit ki day sàmm ngir ma sàmm njabootam kullukum raa wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi nit ku nekk la ngay sàmm du la koy waxal foog nga sàmm si mbir nga la ngaa sàmm ñeneen sëriñ bu ne na ma bakkanam suñu borom tax bu fekkee da ngay jéggi maqaama yi ngay jéggi maqaamatu tamkiiniya mooy dem ba àdduna dara safatu la ci ku gisul àdduna na àdduna jëkkoo ba dara leen ku mu toxool àdduna mu ma sokkoo moom kon ku sokkoo àdduna avec ngay gis nag di dund ci kaw Sëñ Tuubaa woote ñu wuute mbaa ñu wuutal dara jarul ñu wuute mooy ñàkk a dem wuutal mooy ñàkk a jëfam wuute wala wuutal dafay at la jël ko nañuy ñaan yàlla di teew gi teewal di teew di teewal di teew di teewal dañ koy gën a mën rek damaa jëfal Sëñ Tuubaa ba yàgg mënatuma ko la ko wax ku ne ragal ko te xam ne jëfalu Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa lu ko waay def jox ko jox suñ tubaab ñàkk amul fenn jox sa bopp ñàkk moo am moom ngay jox suñ tubaab di calcul sëriñ tubaab ay mbiram kenn ko calculé ndax ku muy dimbali du calculé loolu bàyyi nit ci xel ngeen waajal màggal gi ci anam boo xam ni ndax man ni ma ko bëggee te amee noonu xam ngeen ne ma waa yi bu tubaab ma waa yi la ma bëgg ni ma bëgg màggal gi man xam naa ne noonu lay demee mais damay yéene mu sottee ci yéen waaw kenn mënu ko tere maanaam damaa bëgg ren ndax doomu aadama yi dañoo bari te bokkul lu ñuy lekk su ma sañoon ngeen fexe ba ku màggal sa luy sa palaat boo gëstoo gis ko gàttal gàttal su dee ko defar jokkale koko ngir jàppam seen yëpp dafa rëy rëy ba yaabe ko àndanu àndanu doon benn say takk si ab buum jox koko jokkale koko ngir jàppam seen yëpp dafa rëy rëy ba yaabe ko àndanu àndanu doon benn say takk si ab buum boole koko ngir jëfam si ñu dafa rëy rëy ba yabi ko ananu andando doon benn say takk si abum jox koko njukkale koko ngir jëfam si ñu dafa rëy rëy ba yabi ko ananu andando doon benn say takk ci ab buum jox ko ko njukkale ko ko ngir jëfam ci ñun tabara yore ma yawi ko ananu andando doon benn say takk ci ab buum jox ko ko njukkale ko ko ngir jëfam ci ñun tabara yore ma yawi ko ananu andando